asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi mais mai 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey bokk nañ suñu xëy awale moo xam suñu làmb la la tribune la Les Échos Leewtoo TV la jëm nag mooy lenn li amoon bërki dem ca 2STV diggante booy ñan Lac de Guiers numéro mu mel ni ki seenum jàkkaarloo moom suñu làmb dafa jàpp ne day boo bëggee dégg dégg jàkkaarloo ba safoon na sàpp lool ndax nag ñaari mbër dañoo koñante kenn nangu ta may sa morom fu mu yekke ak nakam booy ñan nag nee na objectif bi mu am day nee na boo bëggee dégg-dëgg daal kuy bëgg combat bi moo la ko gën a bëgg laaj moom ne ko yow li ma xam ba xam ko day mooy balaa ma laa daan dama lay yar ba pare maanaam corriger la ba pare doog laa daan ndax nag maak yow bokkuñu ndab la muy lekk duma sa morom mu mel ni ki loolu si sunu làmb lanu ko fekk waaye fii nga xam ne tam mooy les échos les échos tamit ñëw na mu mel ni moom la mu gis daal mooy ne na ñaari mbir day boo bëggee dégg-dégg la ñu signé moo di bagaar xeex daal la ñu signé bari ki démb ba tey la tribune tamit ñëw na ca mbir ma mu mel ni ki daal wane na ñaari mbir ya ak promoteur ba ñu taxaw mu mel ni ñaari téeméeri daal wane nañu kulóol ba nga xam ne nii moom la ñu ñor a jëm ca bés boo nga xam ne buñ ca yeggee fas ca lañ fas yéenee defante mu mel ni kii daal face à face ba moom tàngoon na jër jër jër bari woon na tamit ñu fa teew sunu làmb xëy tey nu ko wax waaye boo bëggee dégg-dégg daal li leer ba leer day Boy Niang sol woon na ba rafet Lac de Guiers numéro 2 sol ba rafet jëlam ma yërëm teg ko ci kaw boppam mu mel ni ki daal ñaari mbër yi moom seenu combat buñ ca yeggee day dana metti waaye bis ba loolay am tamit mu mel ni ki nag promoteur ya teewoon nan fa sunu làmb nu ko wax de nee na daal jàppal daa mel ni nag dualité bi am ci diggante promoteur yi moom bërki démb feeñ na fii nga xam ne nii moo di ca 2STV sunu làmb xëy tey dinu wax loolu keneen koo xam ne nii moom bureau promoteur wala boog présidence ba bëgg na ko jiite yëglikaay wax na ko mooy Jibi Njaay borom Jibson production nee na daal li leer ba leer dey bu ñu amaatee lii di AC moom li mu bëgg mooy ñu fal ko mu jiite kuréel ga Jibi Njaay xëy di wax loolu leneen loo xam ne moom amoon na wala boob mu ngi waaj a am muy aada faas diggante ma kondu lëfu aada faas nag moom su lam ne na fi mu nekk nii day nee na pare na ngir lépp lu bés ba laaj mu def leen ko kii nga xam ne moo di ondu lëfu bu ñu yeggee kër samedi nee na daal lu metti la ko nar a teg waaye ñi moom seen kombaa dafa tagga témbi suñu lam ne na li tax bu combat bi bloqué daal ñetti mbir la suñu làmb xëy tey dina ko wax muy diggante Ama Baldé ba tey ak kii nga xam ne nii moom moo di Tapha Tine waaye boo bëggee dégg-dégg daal weekend bii moom safoon na sàpp Iba Mar moom démb loo ci dégg tàngoon na l'an 2000 premier tour la ñu ko éliminé Birame Missine moo ko def Pape Ndoye bu Fass tamit premier tour la ñu ko éliminé waaye la ci gën a neex itam kii nga xam ne ni daal moo di Général Malika Grand moo ko daan ci deuxième tour waaye lam ji daal démb boo bëggee dégg-dégg moom bari woon na ay ponkal li leer ba leer daal waaye la ca mujj nag mooy kii nga xam ne nii daal moom moo di ah Fara moo jël mbir ya waaye poids lese ba nag xale ba ñuy wax soox soox moom moo ko jël yóbbu ko Adrien Senghor itam tàngoon na jër ndax nag boo bëggee dégg-dégg Alpha Samb moo fa tegoon un million loolu ba tey ci Leewtoo ko jëlee waaye nag ba ñu demee ba mbir ya jeex daal kii nga xam ne moo di ordinateur moo fa daan ngóor ndàngaan moom itam jël la ñu fa tegoon mu mel ni li simple bi moom safoon na sàpp waaye jamono jooju sëñ Modou Niang moom itam woote woon na fa nga xam ne moo di arène nationale kii nga xam ne ni daal moo di daal moom lu mel ni sawara rek gis moom la ko Félix tegal daan ko jël bu rëy rëy rëy sëñ Modou Niang moo fa jaaroon mu mel ni ki daal weekend bi moom lamb ji wala boog boo bëggee dëgg-dëgg premier mai bi moom lamb ji jaxoon na lool lool lool waaye Issa Pouye moom mun nga xëy di wax ne ka muy waxal mooy garga nee na donte daan na kii di Moussa Ndoye de waaye la mu jàpp mooy Moussa Ndoye du moroomu garga Issa Pouye moo xëy tey di wax loolu ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu lamb wa li ma leen di xamal day jàpp leen ko ci Leewtoo TV léegi di ngeen fa gis vidéo boo xam ne yàlla ci garga mboose ak ay mbiram mook Cheikh Tidiane ñaa duma ca sori foofa laa cay yem ndax junj doy na boroom xel waaye loo ci mën a dégg daal Talla njaay feetu premier mai bi moom neexoon na waaye kër Denis TV Ndiaye Pape la mu way neex na waaye mbir la ñu sol ci costume bone Lac de Guiers ba bëgg naa nag nga wax ma nu mu tudd Talla comme yow ab yàgg génn nga yàgg a joow sax laa lay tudde ni ko gaa yi di waxe salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni koy defee chaque jour ma ci ànd ak sama mag sama xarit Babacar Chéri Teneng Babacar nuyu naa la. ay sa loolu neex na <laughs> nga ne sama mag sama xarit Chéri Teneng waxal loolu ca kaw na biir mais kontaane naa la tamit ah. tey macha allah fi nga giri tamit nooy na Moussa Niang itam xam naa yokk na loxoom wala ngeen yokk daje liñ naan dox daje gën a wóor waaye gis nga taal sax tey daa yokk loxoom xam naa lébu fa jaar kon daal lébu teneng Moussa Niang ah macha allah rythme bi mu neex na. Ah, waaw kay dañuy dugg ci waxtaan bi ak li nga xam ne amoon na fi mardi bi ñu jógee mi face à bi taxoon diggante Boy Niang ki nga xam ne ni mooy Lac de Guiers tey euh, bi yëpp ñëwaat ci ñëw ci kàddu yi ñu fa wax ambiance bi fa amoon ci diggante ñaari mbëri waaw loolu moom balaa ñu siy sori sax dañuy njëkk nuyu nag suñu frère Baye Ndiaye mi tëgg combat bi ndax nag man yàlla daa def ah mu def mu nekk sama nit te bëri na ñoo xam ne ñoon la mel ak ñoom boo xoolee keroog plateau bi ñu def 2STV yi ak ñi génn ci làmb nga xam ne tamit ah nit ku ne def ni nga toll sa noonu lay toll kon bàyyi ñu koy nuyu na mu ko organisé na macha allah moog staffam bi yëpp waa Alburax Events jàkkaarloo ba nag neexoon na lañ ci doon xaar tamit am nañ ko ca pour man parce que ñaari mbër yi ñëw nañu muy Lac di Boy Niang wane nañ ne bëgg nga bés ba waxante nañ nag waxi làmb ndax mbër des li muy wax ci signature contrat waxi làmb lay doon waaye seen wax jooju yëpp man li ma ciy jàngate la rek ku ne moom yaakaar naa balaa comprendre luy xew Aysatu daa ñibbi ba këram kon nag foofu mu toll fii ne fi ñu toll nag communication bi ñuy def bataille psychologique bi da ciy feeñ communication ngir rëbbante naxante bi day feeñ yooyu yëpp day am mais bu arbitre soufflé ku ci eh, cuune tuuti tuuti wala nga dugg ci fiir gañ la woo ah boo sàgganee gémmiñ da loxo dana dar gémmiñ wala mu dem ci gémmiñ te du yóbbu tib te lu doy waar ngay gis bu keroogee waaw waaw mu nit ñaa ngi koy xaar mais tey jii ñaari mbër yooyu seen mental nan nga ko gisee. waaw mental yi ma gis actuellement si ñoom baax na actuellement may wax ak yow nii mu jógee France ñëw aéroport bokk naa si ñi ko njëkk a dëkk micro bu Lutte TV gis nañ ne ka li mu bëgg wala ambition bi mu amee ba tey mu ngi ci mu ngi ci yoon bi ba pare mentalement da nga gis ne loolu mu ngi koy dund. Lac de Guiers numéro maanaam mental ëpple ko ko day jafe parce que li tax ma wax loolu mooy mësuma gis mbër déstabiliser ko ci làmb. parce que lu tax mooy defe naa ma ak Modou Lo combat bi ñu mujj a bëre combat bu metti fa la mën a yem. te kera ak yuuxu yi ak stade bi ni mu mel ak pression bi mais terewul mu gérer moom li mu war a gérer loolu nag defe naa mental bu baax moo koy may mbër mooy que ni tey soow du bëree bëree bëree bëree bëri ba ay sotu def la mu war ta def yaa ngi dégg mental mooy doo wéet a wéet a wéet a wéet loo war ta def loolu mooy mental bu baax te loolu da koy gis ci ñoom mais Lac de Guiers 2 loolu yaakaar naa bokk na ci mbër yi ko ëppale waaw euh, euh, Babacar bu ñu jógee si combat boobu dañuy dem ci combat fi jàlloon diggante Moussa Ndoye ak ki nga xam ne mooy Garga Mbossé Issa Pouye tamit génn wax ci ne certes jël am na mais jàpp na ni Moussa Ndoye ba tey moo mooy le meilleur daal ci ci ci ci ci kaw Garga Mbossé. waaw Issa Pouye encore une fois di champion bu mag def lu nekk si làmb ah. Euh, olof nag neen courage jëmale sa kanam mu dëll xëy na kee mbokkam la xëy na moo tax mu waxee noonu waaye nag ñun ci li ñu gis ci bëre bi kera wax dëgg yàlla ci di bi bi débuté ba bi mu jeexee Garga Mbossé wane na ne moom mooy maire bés boobu te moom la yàlla jox tamit ndam li loolu nag ñun du ñu mën a nekk wax Issa Pouye jooju xëy na moom mi ko wax moom lay engagé wax dëgg yàlla actuellement fi ñuy waxee nii Garga Mbossé mooy maire Issa Pouye parce que moom mooy maire Moussa Ndoye di moins parce que moo bëre ak moom mu daan ko ki la daan nag mooy sa miir ba ba revanche di am bu revanche amee ñu gis leneen su ko roogee ñu mën wax ci loolu waaye comme revanche amagul bëri nañu garga daan na ko ci biir bëri bu leer nañ amul lam-lame Moussa Ndoye nangu ko kon garga actuellement mooy meeru Moussa Ndoye te Moussa defe naa nangu na loolu mm-hmm. waaw Babacar ba tey dañuy des euh, ci combat yi parce que ki nga xam ne ni mooy euh, Sam Production moom it euh, mi ngi taxawal combat jox ki nga xam ne ni mooy Nandi Fall ak Kulifay de chance ginnaaw bi seen combat jàlle ñu am ci defet mu boole leen ñoom ñaar nag def combat rachat parce que <laughs> ay mbër boo leen tëggee ñu am defet nga joxaat leen chance loolu fa la fa la chance mën a yem Sam day def na lu baax parce que moom ma koy nuyu di ko siyaar moom it di sama waay Sam di borom baax Sëriñ Xadi Ndooy Sam maa lay bëgg loolu mu def defe naa ne làmb duñ ne rek da daan dañ la war a bàyyi tëgg mbër yi daan kon làmb du dox parce que daan ak daanu ñoo am bu fekkente ne nag kolifay dafa jóge nga xam ne mooy daan defal jóge ci defet digganteem ak soq mu boolewaat leen pour mois de juin leen sens mais ku ci saisiru sens bi moom jàppal ne tamadu lëppi buum moom parce que nag dina metti lool waa loolu des ci sa carrière moom ñoom ñaar ñëpp a ci yem parce que boo xoolee ñoom ñaar ku ci ne sa combat ngi mujj da nga ko ñàkk yaa ngi dégg kon tey kilifa yi dafa teglante ñaari defe ndaan di faal même chose yaa ngi dégg kon defe naa nag chance boobu leen saam jox moom il faut ñu saisir ko mais li naq li li metti mooy li père Max di ci nekk ñaari ndamay dugg ay satu moo benn yi génn il faut am ko daanu daanu nag ci lamb la bokk waaye nag boo daanoo ci ñoom ñaar ku ci daanu moom dina am lu mu waaw lu mu perturbe ci sa carrière waaw waaw du si ñàkk parce que làmb moom teg teglante ay defete euh, da ciy métti tout le temps parce que mbëri moom boo xewlee sax chaque jour dañuy fexe nuñ ko éviter parce que dalay retardé euh, tuuti ci sa carrière Babacar dañuy dellu ci week-end bi ñu jugee parce que amoon na frappe amoon na simple fee ca euh, arène nationale gis moo fa daan ki nga xam ne ne mooy Pape bu xees waa Félix tamit nekkoon ci yoon nekk xale boo xam ne ni wax dëgg yàlla bi mu débuté amoon nañ ci moom yaakaar mais dañ dem ba benn moment gis mu xaw wàcc tuuti loolu nag mooy sport des fois da nekk ci niveau bu baax bi des fois niveau bu baax ba ci suuf xëy na nag loolu moo ko daloon mais vraiment ku ko gis ni mu doon bëri ak ni la a a doon na ko chance mu saisir ko daan Pape Bou Xees Pape Bou Xees tamit gëj na am defet ah, ci làmb defe naa su ma jumul nag lii mooy nekk Basiru ko Félix daan na ko kon moom itam bu mu découragé wu na dem liggéeyaat parce que xale la dem premier grand combat am la ñàkk na ko na liggéeyuwaat kartaat sansam parce que ci écrit bu mag la bokk muy écrit face Félix tamit di ko félicité ah di félicité waa jàmm gën yëpp mais di encourage tamit ki nga xam ne nii mooy Pape bu xees bu ñu jógee nationale la ñuy dem Iba Mar Diop foofu tamit gala amoon na fa lu simple la fa amoon Jax mise fa li nga xam ne nii mooy 3 millions kii di franc def premier retouram daal di fay signé tamit première victoire am ci gala bi. waaw bu xanaa xam naa premier retour am Dakar sax ndax boo xoolee franc moom ren. Euh, defe naa bi mooy troisième génn xam nga ñaari li génn parce que ñaaxar génn na fa daje fa ak général Malika final daan ko démb mu ñëwaat itam wanewaat boppam bu baax a baax daan booy fay Franc nag na mbër mi nga xam ne nii euh, damay wax ne ka rek boo koy xool da nga gis ci moom sérieux ak bëgg li muy def loolu day feeñ ci bëreem day feeñ ci léppam ñu koy féliciter di booy fay booy fay nag mbër pour man actuellement buy bëre nga ko doole yaakaaruma ko est-ce que dàq nga ko bëre yaakaaruma ko benn problème rek laa gis ci moom mooy que ni ci làmb day dem ba benn moment day teel a doyal ci làmb parce que dama gëm ne mbër mu mel ni Franc nga tolloog moom taxawaay wala bokk war a ngeen toll tolloo doole yaakaar naa doo ko may say cër ci lenn li boo ko may say cër say cër boo ko bàyyee ay yaakaar naa balaa ngay defaru dina la daan booy fay bu ñu am luñ koy critiquer wala luñ koy yokk ñun mooy kani daal il faut mu nay ci yaramam suy muy a bëri parce que na bëri il faut muy bàyyi xel ci kii ka nekk am na fa am ne bu la fa mbër ni yow téye ay satu pour nga génn fa day jafe de waaw te Franc du mbërum caaxaan waaw. waaw bu ñu jógee Iba Mar Diop dama arène Adrien Senghor foofu tamit Alpha Samb mise woon fa 1 million ordinateur daal di koy jël si kaw ki nga xam ne ni mooy mooy ngóor ngóor nangaan. waaw ordinateur tamit dafa mel ni kon loolu su amee parce que daan na ñëw Dakar muy metti ci moom loolu dafa mel ni kon est-ce que du lii mooy première fois am kon ñu koy félicité di wax ne que ko wax ay satu bu yoon jeexusul waaxusul di jeex yaa ngi dégg xëcc bu dagul itam day yëg comme ni ñu koy waxee ah ko félicité moom ordinateur di doomu ñaaxar waaye di encouragé nguur ndàngaan moom tamit vraiment xale bi nga xam ne bokk na ci lit simple bi ren ñoo xam ne ñu ngi ci wane seen bopp bu baax a baax a baax nguur ndàngaan boobu loolu mooy lamb Alpha di ko nuyu moom mi tëggoon lamb jooju dem Adrien waaw Babacar li lañ andi woon tey ci seen euh, jàngat revue de l'arène bi ñu si euh, béggee ñi xam ne ñooy suivre Leewtoo TV yëpp di béggee képp koo xam ne ni soppee Babacar nga wala soppee Aïcha nga rek ak képp koo xam ne rek yéen a ngi encouragé di ñu dooleel